géej gi yàqu na dañ koy wax quoi géej gi moom wax dëgg yàlla moom moom moom li ma wax rek laay waxaat ku jël gaal gi ñu toog nii tey jii boo ko doon liggéey boo ko doon liggéey di nga def cinq cent cinq quelques mille wala 600 mille gaal gi ñu toog moteur bi day jar 1 million e 500 et quelques kon da ngay def 2 millions et quelques ku ko jël investir que gëm nga sa réew. ñun seen amuñ leen lu dul géej gi quoi gis ngeen yenn ndaw yi ñu ngi dugg si géej gi di ñàkk seen bakkan te ñun amuñu leen lu dul géej quoi. loolu ñu mën a dimbalee nag ngeen dimbalee ñu kat liy jeex quoi. mooli sonn nañu yaay mooli sonn nañu ndax tamit indi bata ci biir géej jaay nañu géej gi indi fi bata bata bi lu leen neex tóor lu leen neex def noonu na dañuy xëy di daan seen dool ñoom tamit dañoo fi ñëw di daan seen doole waa dëkk bi tamit daan seen doole kon nag ñun war nañoo mën a dimbali ndax dem géej gi mit na mit goo tee ni boo xëyee doo am dara. gaagu teem ay benn kees ay ñaari kees ay ñetti kees la nga dem doo am dara ah xam nga lool loolu neexul waaw ba ki feebar bu la fi joxee asib la xawma lu la def lu mu doon fooy fajoo ji booy jëlee looy fajoo. bato yi moom dañoo la jël la jël nañu fa la jël yam ñun suñu problème mu àdduna yëpp ñun ñi yaakaarloo géej gi ak ñun ñi yaakaar géej gi suñu mu àdduna yëpp bato yi la. lu nu dal ci géej gi rek ba yooyu la ko teg. tey bu ñu ñëwee yàq géej gi bato yi mbaal dri ñoo gën a yàq géej gi parce que tey jën day dëkk ci xeer si xeer lay dëkk di jur ngay dem programme foofu yor GPS li nu wax GPS ngay programme tey boo ñëwee mu tegaat la fii ba fi ñu toogoon nga xam ne xeer baa ngi fii nga sóob sa caas napp jën boo nappee napp ba ay ngoon nga laxas sa caas daw teer jaay am sa ndawal ñëw toog waa tey bu fekkee mbaal dri boobu day ñëw. fekk xeer woowu ñëw diri ko toj ko yóbbu ko bu subaa boo fa jaaroo fekk dara noonu la ñu def. mool yi demuñu géej ñu ngi toog yaay mool yaa ngi toog di faj seeni jabar sonn seeni yaay sonn. jafe-jafe rek géej gi moom xam nga ne moom toujours ñu ngi ciy jafe-jafe toujours ñu ngi ciy jafe-jafe jafe-jafe mësu fee jug ci géej gi mësu fee jug. ba tey di diri à vingt kilomètres ak fii ak tefes xam nga loolu jaaduwul. loolu moo waral nga gis géej gi dëgër nii manque jën bi ñun ñii fu ñu bay jënd jën ñun ñu dëkk si ini xam suñu kër yi nii ñu dem bay jënd jën kon nga xam ne nan xoolaat daal nan xoolaat ba xam mbir mi parce que booy dem tamit bu sañoon da ngay toog sa dëkk tekki moo gën foofu liggéey sa dëkk toog di gis sa yaay di gis sa papa di gis sa famille di gis sa njaboot dem liggéey ñëw wàcce ñëw moo gën ngay dem tukki neexul ba pare anam biñ koy defee ñun mu gën a metti kon nga xam ne mbir mi am lu ci nekk parce que tey mënoo tamit tey nga bokk nit ki benn liggéey ngeen toog di liggéeyandoo même job moom mu volonté wu bàyyi la fi yëg si gaal yi dem deux ans trois ans mu ñëw fekk la yow nanga meloon sax daa gën a arrière moom mu ñëw jënd këram tabax am oto nekk ci yenn condition yoo xamante ni yow da lay wóor ne kii nii bi mu nekk fii mënul la jënd loolu mu bàyyi la fi kon tamit yow da nga naan mais man damay def ni kii dem ñu bari nag noonu lañ def te ñi ngay gis nii ñii li ajoor yi yi si bari ñooy ëpp di dee si gaal yi ñoom mënunoo yóbbu gaal de ñun mool yi ñoo mën a yóbbu gaal kon tey ñoom bu buñ ñëwee buñ participer joxe seen xaalis ñun ñooy lax gaal yi fii ba feneen fa dul Espagne parce que mën nan ko ndax buñ toogee si gaal duñ wàcc duñ def dara comme dañuy mel ku nekk si lal ba le toog amul problème parce que tàmm nan ko léegi kon nag gi dafa war a xoolaat lan moo waral jeunesse bi daw di mbëkk dugg si gaal yi di dem dan jéem a encadré géej gi daal ñu jéem a wax ak bateau yi mbaal diri yi ñu xool fi ñuy diree parce que lii ma gis nii non jëmul kër quoi gis nga ñu tok ni ci mbaar dajaloo na attaay ta heure bi daan fekk su ñu nekk ci geej di ko lijjanti di nap ba ay 6 heures ñu ñëw nekkaat sunu njabot man duma noppé di ko wax ba tay nekk fi nan ñu ci dimbali ñu jóge fi lu contrat bu ñu signé rek ci Sénégal ci geej gi nan kay fayakoo moo tax moo li montunu am dara dara montunu ko am Macky Sall nak saa jour may wax lool na wax ci mool yi xam nga mool bes bés bu ñu déclenché woo ah. loolu kenn mënu leen dëral bu xoolee senegal a ah, ak moo moo ko moo moo ko ndar keppa chaque jour may wax lool bu mu ñaan yàlla sa loolu di am waaw ñuy def marche bu mu ko ñaan yàlla na dimbali mool yi te yàlla tax di mu leen dimbalee nag mooy mu ar géej gii géej gi leen am senegal amatul ay tool waaw bu ne ku leen bëgg a béy loolu da ngeen bëgg da ngeen bëgg rey rek fan yéen da wax naa si benn média ne man bu ma gisoon gaal guy mbëkki ma mbëkki damay dem damay mbëkki fii dafa métti maa ngi ne am naa 60 ans bu ma la koy doog gëm yaa ma dégg maa ngi ni fatigué bay bëgg dee moxo ñoo nii ah ah te dara ko lu liggéey bi métti ah ñi nekk sa doon noo dàq liggéey dàqul noo liggéey de ah. waaye nguur gi ku toog ba ba doyal rek nu jëlee la fa loolu seen i pexe la ku doyal rek si xaalis ñu jëlee la fa andi ñeneen jàppoo ko noonu ba kañ ah ñun ñun fii jël ñu ngi liggéey waa ay pexe la yoo xamante ñoom ñoo koy def ñoom seen biir yaa ma dégg ku nu teg fenn ba ba nga lekk ba doyal nu jëlee fa jël keneen andi noonu la liggéey te ñun ñun mën nu loolu ñun ñun ni somdi lëbu waaw